wax alhamdulilahi rabil alamin bi ñu yàlla mayee li ñu yéene woon organiser ay journée portes ouvertes yàlla may ñu ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin may jaar ci le secretaire général mu di bo Sarr bi nga xam ni moom la ñu dénkoon mu présider li nga xam ni mooy le comité de pilotage de l'organisation des journées portes ouvertes ak le coordinateur Moustapha Diop directeur commercial le doyen Pape Djibi Gaye bi nga xamante ni moo yoroon wàllu communication ak personnel HLM yëpp sant leen gërëm leen seen taxawaay démb nag balaa tey et loolu dama koy wax ak euh, ak avec sincérité pour dire que ñetti at ak genn wàll yi ma def fii si HLM su fekkee mën nañu réussir lu ñu fi réussir c'est parce que personnel bi ñoom ñoo ma jàppale et en premier le secretaire général Modibo Sarr et je voudrais passer pour par lui pour sant gërëm képp koo xamante ni yaa ngi liggéeyee HLM tama xam sa taxawaay mais surtout sa yéene ci HLM am ndam kon maa ngi leen remercier bu baax a baax ci loolu ak seen taxawaay ci journée ci journée porte portes yi di wax ni rek journée portes ouvertes yi liñ ci bëggoon am nañ ko ci parce que dañ ci amoon ay objectif benn ndaxte ñun société nationale lañ à vocation sociale ñu wane ni état mi ngi taxaw ci wetu HLM HLM ndax SN HLM état moo ko moom actionnariat bi est détenu à 100 pour cent par par l'État loolu nag firnde bi mooy le ministre des finance Moustapha Ba ànd na ak son collègue de l'urbanisme Abdoulaye Seydou saw ñu ñëw présider ñu ah, lancement bi nga xamante ni dañ ko defoon sous forme de roadshow waaye li gën a dalal suñu xel mooy ñoom li ñu wax ci seen ay biir discours gannaaw bi ñu rafetloo liggéey bi nga xamante ni SNHLM def na ko wax ni requête yi nga xamante ne nii def naa ko te lépp nag nekk ay requêtes yu yanu maanaa bi ci jiitu muy la rémunération du service public ñi xamul mooy lan mooy soo gisee Dakar dem dikk am na dëkk yoo xam ne sax le transport public soo demee ay Suisse yooyu nit ñi duñ ko fay pourquoi état moo koy jël en charge Sénégal jëlu ko en charge waaye dina ko subventionné dina subventionné gaz dina subventionné électricité dina subventionné leneen bu njëkk am na nu état fu mu doon jaar pour subventionner muy le fonds d' appui pour euh, euh, d' amélioration de l' habitat urbain tey jii dellu si na ci li mel ni safru yi ndax terrain yi bu ñu la joxee terrain aménagé ko duñ ko dugal si njëg bi subvention la waaye jàpp nañu SNHLM si projet mi yëpp nga xam ne wàllu social daf si war a dugg kon am na loo xamante nii war état warloo na ko ak SNHLM moom la ñuy wax la rémunération du service public nga xam ne bu ko ci dugalee dina yombal non seulement ñu uti ay financement mais dina yombal également ñu mën a euh, eggale suñuy projet at mu jot mu gën a prix bi gën a wàcc ba sénégalais yi mën ci mën ci jot beneen bi tamit ñu wax ni dañu dem ci code des marchés publics foofu la HLM ne te HLM ba muy jogee OHLM di ñëw SNHLM dañ ni woon su nekkee code des marchés liggéeyam du mën a gaaw kon nañ ko jëlee office indi ko société nationale waaye dañ dañ ba si di société nationale yi it code bi tënk leen ba tax na tey ñun ñi nga xam ne dañu war a produire ay logement rapidement des fois nga gis partenaire bu ñëw ni la mën naa tabax client amee tabaxal la lu mat junni wala ñaari junni logement ci at mi jox la ko say nga jaay ko say client fay ma mais ñun duñ ko mën parce que code bi daf ñuy tënk loolu wax nañ ministre bi ñu xool naka la ñuy def ba HLM ñu am benn nu ñu koy aménager euh, ay ay ay ay fenêtre yoo xam ni dinañ ci mën a jaar pour que bu ñu amee benn partenaire boo xam ne mën na def lu gaaw a gaaw ñu mën ko def léegi léegi mettre ko la disposition des populations d'autant plus que ñun li ñu yor fii ci ay clients yu am xaalis mën a fay kenn xamul nu mu toll. seen difficulté rek mooy produit bu bu disponible loolu bi ko waxee ministre bi dégg na ko dugg na ci. dugg na ci noppam réponse bi mu si joxit defe naa ni je pense que dal na xel ndax di dinañ ko étudier. bi ñu des mooy c'est presque dans le même ordre d'idée mooy dëkk boo dem ñiy def wàllu social dañuy am lu ñuy woowee régime fiscal dérogatoire ndaxte ku ne xam na ni ay taxes bu fekkee da nga fay TVA fay droit de douane. fay impôt les sociétés fay bépp impôt taxe boo xamante ni aju na ci wàllu liggéey bi loolu yëpp nag surtout bu fekkee da nga jënd suuf lancer marché faaw da nga koy dugal ci sa business plan te loolu tamit day yokk njëgu kër loolu it ministre bi dégg na ko bien que ni xam nañu ni Sénégal ci tolluwaayam heureusement ñun bokkuñu ci pays yi nga xamante ni nii endetté nañ ba ñuy wax dañu am faible capacité d'endettement nous sommes toujours si niveau euh, niveau euh, euh, capacité d'endettement modéré te loolu ci Afrique fukki dëkk ak juróom rek ñoo ko ci am te Sénégal ci ci foofu la bokk donc foofu pour ñu maintenir ci il ne faut pas bor yi bëri il ne faudrait pas subvention yi bari mais lu jëm si wàllu dëkkuwaay defe naa ni ministre bi li mu ñu wax dal na suñu xel dinañ ko étudier pour que loolu loolu mën a euh, mën a mën mën a yemb. donc li ñuy bëggoon ci état am nañ ko wax na it ni engagé wu na waxuma ko si tubaab que ni lu jëm ci mise à disposition assiette foncière comme ni ñu ko président Macky Sall defale 50 hectares ci Kébémer ci ci Sébikotane alor que ni depuis 99. amuñu woon suuf loolu defe naa luy continuer la te fi muy tàmbalee mooy également ñu am suuf ci ci Thiès si si euh, euh, côté bi nga xam ne moo gën a placé ndaxte xooloon nañ ko ak euh, le directeur de l'urbanisme bi bi fi jógee muy Oumar saw yàlla na ko yàlla ko yàlla yërëm bu ñu paree ci ci ci ci état bi ñu nekkoon également suñu cible partenaire yi si lañu bokk wax naa ko sànq ubbil nañ leen waxtaan nañ ak ñoom ñoom it ñëw nañu xam nañ ni intérêt la pour que li nga xamante nii mooy plan stratégique développement si juróomi at yi ñu war cee produit lu toll ci euh, fanweeri junni ci ay kër ñoom it opportunité la pour ñoom pour ñu def affaire ak ñun. donc non seulement recevoir nañ leen ci ci ci roadshow bi mais joxaat nañ leen ay rendez yoo xam ne buñ ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom yaakaar nañ ni ñu am jafe-jafe suñu projet yi nga am nga xam ni les tours de l'obélisque yi ne fii si la ñu bokk. li ñu war def fii ci Colobane ci la bokk mais logements sociaux yi ci la bokk dinañ am ay partenaires yoo xamante nii dinañ ko ànd dinañ ko ànd euh, ak ñoom beneen objectif moo doon aussi. Euh, xam nañ ni HLM am na ay nit yoo xam ni am nañ jafe-jafe ci wàllu si seen accès ay terrain wala seen ay kër te yàgg nañ fi souscrire ubbil nañ leen ñëw nañ seet si ñu ñu waxtaan ak ñoom téyewuñ kenn ci bunt bi ku ñëw sa xararit dañ lay bàyyi nga dugg soo ñëwee ñu dalal la jox la ndox mu sedd nga naan may remercier sama sama jigéen ñi jox la ay beñe yu neex nga lekk ñu toog dalal la waxtaan ak yow dalal sa xel expliquer la la nga foogoon du loolu parce que HLM fu muy joxe rek moo ko moom titre foncier la wala état jël na décret ni ko yaa ko moom. bu amee nag ñu jaar ca gannaaw ñëw di ko xëccoo ak suñu ay clients ñooñu xëy na waruñu adressé wu à la SNHLM mais feneen la ñu war a dem loolu bi ñu ci dalalee seen xel expliqué leen ah seen xel gën na dal ba ci am na ñoo xam ne sax dañu woon ñemewuñ fa woon a tabax ndax rawal nañ bu ñu tabaxee ëllëg mën nañu leen ni moomu leen ko ñu toj ko. ñu dalal seen xel gannaaw bi ñu waxee yeneen autorités yi mu concerné muy les maires les préfets si zone yooyu nga xamante ne nii euh, concer concerné na leen. kon daal suñu defee suñu suñu suñu suñu bilan dañuy wax ni am nañ satisfaction te bu ñu fàtte nag yëfi si ñetti site la am benn bi mooy fa ñu ko defee ci corniche bi Radisson beneen bi mooy fii mais am na aussi ni ko SG waxee benn camion boo xamante nii wër na ak ànd ko commerciaux yi ak ñi def marketing dem ci marché yi muy Colobane di Tilène di Castor Bourguiba fu nekk ci biir dakaar jàkkaarloo ak nit ñi au total xëy na nit ñi dégg bari nañ mais ñi nga xamante nii seen intérêt wane nañ ko ñëw jël prospectus yi wala ñu ñëw laajte wala ñu camion bu romb leen ñu dellu si fii ak ñu visiter fii ak ñi visité fële lu mu néew néew ay junniy junniy nit la pareeguñu pour def la bilan wax ni nombre exact bi lii la mais loolu defe naa ni pour ñu attendre roon ko si ñetti fan suñ toogoon fii rek duñu ko duñ ko def ma terminer rek remercier la presse ndax bu dul woon yéen écho yi ñu am au niveau international ku ne ñu woo naan ñu ah xamuñu woon ni kat yéen a ngi Kébémer xamuñu woon ni kat yéen ngi Saint-Louis xamuñu woon ni yéen a ngi Vélingara man Vélingara comme dama ko xam am na ñu fa dëkk ñu ma woo ni ma man maa ngi dëkk Vélingara mais xaw ma woon ni am ngeen fi ay ay ce qui veut dire que vraiment vous nous avez été d'une utilité parce que permettre ngeen ñu nekk au niveau national et international ñu xam les journées portes ouvertes mais xam également projet yi nga xamante nii moom lañ leen di euh, si seen ay seen ay dëkk donc maa ngi leen di remercier di leen wax ni ah def nañ leen ay partenaires depuis toujours mais pouvez continuer quand même à venir collaborer avec la SNHLM ci lépp loo xamante nii suñu ay euh, activité la voilà dama waroon a tënk j'ai été pratiquement exhaustif ci li ma waxoon ci tubaab di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu